nisfu Shaaban ak bi nga xam ne mooy fukki fan ci weeru muharram di tamxarit mu ne guddi guddi yi mu waxaale nii benn bu ci ne dafa am lu tax mu màgg mu ne dafa lëngale ñaari mbir guddi yonent bi ak nisfu Shaaban kon gàmmu Dakar ren loolu mooy particularité bi ku fi teew nee na mi ngi lay indi alal ak ngërmandeem sëriñ bi yi mu ne wax na ne bu ma teew moo fi teewal boppam mu ne am na ngant nangu nañ ko waaye moom it teew na teewal ko te teewaay bi tam doy mu ne mi ngi ñaan yàlla mboolem aajo yi yëpp yàlla ko yàlla faj ci barke sall sun ci yàlla Muhammad Cheikh Ahmad Tidiane barke yu ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi kon yéen ñëpp taalal leen ngeen ay euh, aajo ci zaahir ak ci baatin Allah اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين إنا أنزلناه إليك تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى الله الله الله أكبر الله أكبر الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين إلى قريش إلى بجنة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله alhamdulillah الله أكبر Allah الله أكبر الصلاة